waaw bon c'est pour tout le monde waaw baax na je suis bien centré ah le soleil waaw nii baax na ah, loo na vous êtes aussi bon lu tax ñu confiant ñu ngi ko teg ci ñaari mbir. ba ci ñett sax bu njëkk bi moom moo di gëm nañ ne yàlla gëmul nelawul te dara ump ko te yàlla dëgg la àndal saa yu ko neexee nag lay wàcce dogal ñaareel bi moom moo di. li ñuy wax yëpp mu ngi tegu ci lu ndaw moom moo di ministère de l'intérieur nga xam ne moom mooy mbubbu ministère des élections yebal na walla bàyyi na ay servisam maanaam mu di ay dagam ñu xëy dindi Ousmane ci liste yi te liste yi boo ci nekkum doo mun a sànni sa xob bu ñuy tànn njiit bi te it kenn du la warum kenn du la mën a tànn su fekkee ne que dañuy tànn njiit mu teg ko toujours ci mbirum aji Sarr léegi nag loolu ñëpp xam nañ ne que tey jii tuuma yooyu teggeekul et que loolu complot buur moom moo complot te loolu teggeeku na àddina bi yëpp tey jii xam nañ ne que dañu doon wut ay pexe pour daan ko pour ko mu bañ a dem mën a sàkku jiit réew mi kon buñ ko tegee ci xam-xam ret dina jàll lu tax parce que ci tuuma yooyu tuuma yooyu jàpp nañ ko ci diggante bi te yoon dafa nekk su dee jàpp nañ la waxul ci yan anam lañ la jàppee mais atte nañ la ci chambre criminelle mooy ñi nga xam ne que dañu nekk euh, maanaam mbirum deret la walla maanaam jalgati yi nga xam ne dafa jéggi dayoo su fekkee kuréel boobu atte na la dégg nga te fekkee woo ko suñ la jàppee bés buñ la jàppee. dañ la war a indiwaat ñu attewaat la su fekkee ne que bañ la jàppee toog nga fukki fan yoo xam ne que yow waxoo ne que kat man lañ ma tegoon daan ma ko weddi naa ko nañ ma attewaat Ousmane bañ ko jàppee ca police bii fii ci biir tribunal la njëkk a wax ne balaa may tontu ci dara moom moo di jàpp ngeen ma atte aji saar bi weddi naa ko nañ ma ci attewaat kon procureur amul sañ-sañ ne que loolu xamu ko yëgu ko te procureur moom ma war a programmer waat audience bi dafa war a déggoog président tribunal bi li tax ma tudd ñaar ñooñu dinaa ci dikk léegi léegi nag ba mu demee it ma ne ko lii nga bind bu leen neexee duñ ko feeñal fenn kon bindaatal nga joxe ko fii ñu yéegal ko maanaam kaso bi yóbbu ko parce ñi nga xam ne leen jàpp dañuy yoon daf leen jox àq ak yelleef ci ak ak yelleef boobu soo bindee ñi nga xam ne ñoo lay garder amuñu droit bañ a yóbbu yow sa kon bataaxal boobu xamoon nañ ne dina yegg ñu bind ko procureur bind ko ki nga xam ne moom mooy moom mooy jël maanaam mbir mi mu di greffier bi en chef yëgal leen ne que tuuma yiñ ma teg. ba daan ma ci weddi naa ko nañu ma attewaat ba pare jël benn jox avocat ne avocat bi yow it demal nga yóbbul ma bii procureur yóbbul ma bii greffier bi yóbbul ma bii président tribunal bi yóbbul ma bii kii nga xam ne moo ma atte woon yóbbul ma bii procureur général yóbbul ma bii ministre bi ñoom yëpp ñu xam ne ka lañ ma wax nekk ci fukki fan suñ ma jàppee war su ma su fekkee ne que waxu ma ne nañ ma attewaat atte bi jeex na kon ñoo ñëpp kenn tey jii mënul taxaw ne feew ne yëgu ko li ci nekk nag moom moo di que ñoom ñoo ko war a mën a attewaat léegi nag au lieu ñu attewaat ko ñu ne mooy ne ko déedéet lañ ko condamné loolu kooku dañ koy dind ci liste kon bu fekkee ne kiy atte day atte yoon rek bu gis loolu dina xam ne que atte boobu yoon moo ko saayal ndax yoon dafa ne boo ko defee rek saay ne dañ la war a attewaat suñ la attewul it saay na ñetteel bi fiñ ko teg moom moo di que ci anam yooyu ma wax Sénégal ñi fi nekk am na attekat yoo xam ne dégg nga te it mun naa njort ne ñoo fi ëpp kenn mënu leen ger am nañu fit ragal nañu yàlla am nañu xam-xam dañuy ñaan yàlla dossier bi tegu ci seen loxo bu tegoo ci seen loxo yit bu soobee yàlla mbir mi dinañ ko jaadale yoon loolu mooy ñett mbir ñi nga xam ne da ma laaj fan lañ ko teg léegi nag ñun sabab bi la ñuy def sabab bi nag ñii ñëpp dañ koo set mooy lii ma wax lépp léegi nag ba tey ji gëm nañ ne que Ousmane incha allah rabbi dina bokk ci élection yi te gëm nañ ne it nii nga xam ne ndaw yi ak jigéen ñi ñoom ñoo ko topp te suñu borom bi nekk boo may seet seet ma ci jigéen ñi ci ci ci ci ndaw yi wala nga seet ma ci néew yi doole néew yu doole yëpp topp ci moom jàpp naa ne que bu demee amul koo xam ne mun na jàmbaarloog yow te du la botti duur li ci suuf day falu. Parce que les juges la Cour suprême. aurait pu vider ce dossier-là depuis très longtemps, au lieu de renvoyer devant le tribunal d'instance de Dakar, qui peut pas contredire la Cour suprême. Donc, nous avons déjà gagné. Ils ont, gagné à Ziguinchor, juridiction inférieure. Nous avons gagné devant la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, qui a cassé, qui a annulé, qui a éliminé, qui a anéanti la décision du juge de Zégachan. Aujourd'hui, est-ce que notre juge ose de raison au juge de Zégachan alors que la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, a désavoué le juge de Zégachan Où sont ceux-là qui jubilaient, qui criaient victoire Aujourd'hui, vous les avez vus dans le petit soulier, incapables de plaider le dossier. Parce qu'ils ne peuvent pas convaincre le tribunal. que... eux, oh, c'est euh, la, justice n'a pas été dite jusqu'à présent. ils ont même dit que la, Cour suprême a conforté euh, Ousmane Sonko lors de son jugement. Aujourd'hui, qui a dit ça ils, ont dit ça. C'est pour manipuler l'opinion. La Cour suprême a cassé la décision de Ziguinchor. Comment elle a pu conforter la position de Ousmane Sonko Et ça, c'est un ballonnet. C'est un mensonge. La Cour suprême a cassé, a massacré, a éliminé, a annulé la décision de Ziguinchor. Comment peut-elle donc consacrer Ousmane Sonko Il faut être honnête, il ne faut pas manipuler l'opinion. Hein. Arrêtons de manipuler l'opinion. Et je vous le jure, aucun juge n'a le droit de violer la décision du juge supérieur. Vous savez ce que cela veut dire, la jurisprudence